ñu fi dajale mooy dañu woo agent yi nga xam ne dañu nekk état civil pour former leen ci li leen di former mooy euh, nan la état civil organisé woo nan la lan mooy doxalinu état civil ak yan matukaay la agent bi war a jël bis bu set ci biir liggéeyam pour moytu coow wala rëq-rëq wala gàllankoor yi nga xam ni mën na am ci état civil bi loolu moo ñu dajale pour ñu wax ko agent yi jàngal leen ko ah bañ ko defee nag dañu dem seeti koo xam ni liggéeyam ci loolu la màcc muy président tribunal bu Mbàkke nga xam ni lu fi amit moom ci moom lay mujj ñu waxtaan ak moom yónnee ko li ñuy wax terme de référence maanaam yiñ bëggoon ñu jàngale ko mu xool ko seetanteel ko échanger ci ak ñun ni ñu nañ leen jàngal lii ndax lii suñ leen ko jàngalee bu ñu génnee dinañ man lii dinañ man lii loolu moo waral euh, ñu jëli ko. thème bi tey mooy état civil nan lay koy organiser état civil nan lay tëddee maanaam fonctionnement ba ensuite nan la moytoo coow yi jógee ci biir état civil loolu mooy le contentieux des faits d'état civil. Yoyu la wara war a jàngal ci ñaari fan yi ah solution yi mooy lu demee nii parce que léeg-léeg nit ki day juum ci li tubaab di wax se tromper de bonne foi ni la def loolu mën na ne fekk loolu njuumte lo loo xam ni am na lu ko ci mën a fekk lu ko yóbbu ah, euh, ci jafe-jafe yu bari loolu moo tax ñu ni nañ leen former wax leen nag lenn wala yenn ci pour que ëllëg si biir suñu dajanteeg lu mel noonu ñu man ko moytu ba du ñu àgg ci problème yooyu dégg nga fi ay ñoo xam ni ci aw këyit rek wala benn chiffre bu ñu changé rek nañ koy jàppe ñoom dañuy jàppe ni du lu am solo mais ñu yóbbu ko ca kaso wala ñu indil ko ca yeneen problème loolu nag li koy moytu li koy li tax nga mën ko moytu mooy def formation yu mel nii ñu wax la nan ngay téye état civil. li tax ma gën a kontaan muy maire mi mi jël parole. modérateur professeur préfet daanaka dañuy ils ont donné le ton sa à dire dañu définir mën naa ne sax ñoo ma gën a xam lan mooy état civil am na ku tudd baatu ruu maire wax na ci këyit passeport carte d'identité daanaka wax na ne mooy mooy nit donc loolu man tey bu ma doon commencé sama introduction dootuma ci wax dootuma damay tëb introduction bi mm-hmm. parce que ñoom wax nañ lan mooy état bi lu mu tekk ci nit kii lu mu représenté kon loolu war a na rek man xëy na ay aspect pratique ci sama expérience laa war a gën a jëm mais bu dee côté théorie bi ah ñi ma fi fekk ki jiite institution bi ak ñi topp ci moom ñëpp gënu ma leen xam définition maanaam baat bi la muy tekki solo si it maire wax na ko ñëpp wax nañ ko mooy wax nañ lu muy tekki mais wax nañ également responsabilité bi loolu it maire lim ci wax doy na sëkk am na sax ku dem ba maire ngi ma duñ sama agent mana ma ne ko wax dëgg yàlla <laughs> man mi sax xaw naa ci tiit <laughs> donc loolu it di ci dalal seen xel rek xëy na wax dafa bëgg modérateur wax wax léegi dafa yàgg liggéey mm-hmm. am pasté ak pas-pas ci liggéey rek mm-hmm. moo tax muy waxee niveau boobu effectivement nag foofu dafa am solo

ndax Touba tey yaakaar naa màggal wane na ko ak feneen amul ci àddina benn gox bu umbule Touba amut ñëpp Touba la wër tey kon nag ñun li ñuy fi yor ñun suma wàll ñun nit ñu fexee ba mu doon référence moo tax nag ki wax affaire boobu xëy na foofu la ko waxee ngir rek nit ñi ab ci Pastef xam na it am na ay ay ay jafe-jafe yu ci mën a am jafe-jafe yooyu it mën naa indi nit ay gàllankoor am na ku cité léegi suñu mbokk bi nga xam ne nii am na ci natt loolu it moo waral kon ñun suñu teewaay fii fexe ba euh, mooy objectif yi ñuy wax ñaari fan yi suñ di noppee agent bu fi nekk tey wala officier bu fi nekk wala képp ku participer ci atelier bi rek acte état civil bu mu mën a doon bu mu mën a doon suñu ñëwee nit ku ñëw soxla ko ci yow. cest dire war nga am capacité wu defar ko loolu mooy bi ci njëkk cest à fexe ba ko teew rek yow dootuñ la wax waxu nu ñuy enregistré naissance wala mariage wala rectification wala reconnaissance wala enfant naturel c'est-à-dire lépp lu laal état civil xam nga nu ñu koy defar defare muy benn bi loolu lañ bëgg loolu lañ yéene ba ca toppaat ku ciy liggéey nag da ngay xam responsabilité cest dire li lay li li li lay xaar

moom lañ bëgg a ah di jégguluwaat bu baax ci kàddu yi man juge du siège la attekat la préfet xam na li may wax baaxowuñ mën a wax parquetier yi mooy maanaam mooy procureur yi ñoom ñoo ñu am éloquence ñoom ñooy jóg ci audience bi taxaw di di di wax ñun nag ñun on dit le droit dañuy dañuy atte ne lii moo am moo tax sunu wax xëy eh, na du mën a waaye yaakaar nañ ne daal li amoon solo xaw nañ ko tënk. Mm-hmm. di santaan ñëpp di gërëm ñëpp.